DBB Doudoun, NCA Assurance. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf arrêté ministériel bi sant économie réew meeg ni ñu war a doxale l'observateur xëy na ko yër yër leen xët mu njëkk journal bi mooy arrêté bi premier ministre Ousmane Sonko santoon ministre éducation nationale Moustapha Guirassy ngir mu defal ko ko laata datu 27 septembre arrêté ñu ne woon danañu ko publier bés bi école di tijji maanaam altine ji weesu ne nañu démb dëkk ba nee na amul benn école bu am sañ ba ma muy tere élève buy muuru mbaa buy takk croix wala muy ay per yuy mandargal ngëm-ngëmam ngir muy dugg ci école loolee dañ koy tere école yi euh, coowal voile di muraay li ci l'école l'observateur nee nañu wunni waat na démb ci réew mi ndax ci école Sainte Bernadette démb am na benn élève bu jigéen bu fa muur woon bëgg dugg ñu tëy ko ci buntu ba looleet la gis démb ci école Sainte Marie Grignon li ëpp yu bari ci réew mi li leen xoj jamono ji di élection législative yi journal yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko bokk na ci ñoom journal bés bi le jour mi gis ne diggante Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko bi ca kanamu conseil constitutionnel waa Pastef ñoom it attaqué nañu candidature bu Barthélémy Dias nee nañu moom Barthélémy Dias dafa am ak yoon kon waruta mën a bokk ci élection ba mi ngi doon tedd liste lii quotidien nañu ko fóotal mbëtt roccir bal bu ñu waxee Dias yi Ousmane Sonko dañoo am lante ak nañu mooy li yi génne Ousmane Sonko ci législative yi dañuy fooye seenum xel ci caaxaan ca la nekk El Hadji Malick mi ko wax yéenekaay bi nee nañu dolli na ci wax ne dinañu delloosi haute cour de justice ci réew mi ngir topp ci yoon ñi fi newoon te bàyyi fi ay léexóor ak toj toj le témoin nañu moom koy démb ñoom waa Pastef ba ñuy conférence de presse ministre transport di El Hadji Malick bàyyilul dara Macky Sall ko gouvernement bi fi jóge El Hadji Malick dem na démb bay sulli ay mbiru yéeme yu ñu ne moom lañu fekk ca Dakar Dem Dikk nee na fekk nañu ca Dakar Dem Dikk lu toll ci 2814 ak 327 lépp lépp di 3141 liggéeykat yoo xam ne weer wu nekk danañu ñàkk ci ñoom 1 milliard 200 millions de masse mu di liñ leen di weer wu nekk lise ko nañu mbóot yi mu sulli démb moom El Hadji Malick Ndiaye rekk ci liñ ne moom lañu fekk ca Dakar Dem Dikk wax na ci la xew général bu bi waa ASER joxoon entreprise espagnole bii di AE Power EPC ngir mu war a yóbbu courant ci lu toll ci 1600 yu nekk ca Ndar Louga Kaffrine Tambacounda ak ca Kédougou marché ba yéenekaay bi nee nañu suspendre nañ ko waa ARCOP di autorité de régulation commande publique ñoo ne dafa bari yu ca nekk yuy xel ba tax mu ne nañ ko suspendre ba lépp leer loolee journal bi nañu ginnaaw bi waa Banque Santander mi nga xam ne mooy bailleur principal bu cabinet bu maître Boubacar Koita mi représenté waa AE Power Sénégal SA Sisiré Arcop sursoi nañu scandale gi ñu doon ak doon ko ruumadaat ci marché bi mu ngay gën di leer l'observateur bind na caafa ngay bëgg xam ci marché boobee nga xam ne toll na ci juróom-ñeent fukki milliards ak lu projet bi président Diomaye am ngir Casamance ci la journal Las xëy yéen kaay bi nañu PDC lañ ko tudde mu di plan Diomaye ngir Casamance bokk na ci sa village ay village yu nekk ca Kayor ak ca Bawol point actu nee nañu askanoo fa yeewoo ñu àndandoo taxawal mouvement tudde ko Carrefour citoyen juróomi commune yu nekk ca département bu Bambey ak ca Tivaouane ñoo ca nekk seen bëgg-bëgg nee nañu mooy kilifa yi jiite mi gëstu leen seeni tawat journal bi nee nañu becc nañu ko keroog ba ñuy conférence de presse bokk na ci ñuy dimbale leen ci ay tali goudron ak cim ndox ñu dox delli ci l'observateur li am ci mbirum Aïssa Camara mi ñu ne dafa fekk Macky Sall na ñetti ben modi Aïssa Camara ak lu Macky Sall def pour diko fekk ci avion mu toog ak soxna mu len di wax len ñaareel ba kay bi nee nañu mooy Fall ministre affaires étrangères bu Sénégal mi jappalé Aïssa Camara ak diko far ci li mu def bay bind ab communiqué ak di intervenir ci autorité Maroc yi loolee mënoon a ñàkk ba moy ki di Marième Faye ak lu mënona xew rafetul ci ku mësa doon première dame ci Sénégal mu juk di ak akub citoyen société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar kay Espoir ak Kaye Teranga Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune NSIA assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi